bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi mbir mi yaakaar naa defoon naa ci ay vidéo fan yi jàll di alerte ci lu mel nii di naqarlu lu mel nii am naa ñi na xam ne suñu borom daf leen daf leen a joxu jagle am naa ñi nga xam ne suñu borom daf a jagle bàyyi leen ak seen jagle. bàyyi leen leen ak seenu jagle. loolu nag loolu nag mën nañ cee ndax euh, buñ nee buñ nee sariya rek. buñ nee sariya rek. xel dem ci Baay Faal. xel dem ci Baay Faal. waaye su ñun nekkul ci yoon. waaye ñun suñu yoon nekkul ci noonu. sëriñ bi nee na ñi ak ñi amul jagle. sëriñ bi na ñi amul jagle. lañ leen bàyyi ak seenu leen bàyyee ak seenu jagle. loolu moo nga ci jox. naqar nañu ba ci kanam yàlla. waxuma la dara mais xale yi nga xamante ne ay tur tànk lañ di jàngal ñi nga xamante ne ay jàngalkat ay jàngalkat alxuraan la xale yu ndaw ñoo xam si bëtuñu ay fukki at amuñu ay fukki at yoxawul rek ay dugg seen biir di leen dóor mel na kuy dóor ay mbaam loolu ñu koy naqarlu ba ci kër dugg ci biir néeg soxna sëriñ bi soxna bu si suuf sama rakk mboolem ligue ba la fa nekkoon maanaam ñu yàq ko yàq armoire ba yàq lépp loo xam ne ñaari oto bi nga xam ne suñ oto bi nga xam ne yaa ngi dégg dégg naa sax suñ si bu fekkente ne ay Baye Fall lañu loolu ñu def tegu ko fenn Cheikh Ibrahima jugalu leen te ñun nag kenn njëkkum suñ tubaab

ñu leen di torturer ci ndigalu xalif général de mourides bu leen hypocrite lii ci ndigalu xalif général de mourides la moom moo digal ay yéefar pour ñuy corriger ay jullit lu tax ma ne ay yéefar ku xam bay Faal xam doctrine nu Baay Faal mooy bañ a julli bañ a woor wax ma nag ku naan bay Faal laa nii mais bay Faal ci doctrine bi nga xam ni ñàkk julli ñàkk woor day bokk sa pas-pas day bokk li ngay benn jullit wuutewul ni ku bàyyi julli bàyyi woor yéefar la kenn wuutewu ci ci boroom xam-xam yi xam naa ni aaya yeeg xadiis yi su ma koy waxaat répétition rek lay doon mais la répétition est pédagogique yonent salaa salaam nee na al ahdu alladi baynana wa baynakum salaa fa man tarakaha faqad kafara كولر بو دوخ سوني ديغت داك يين موي جولي كوكو باي ييفر لا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاه ديغت نيت كي اك مي نيك ييفر موي باي جولي يالا خول وا سوارا نيل لام مولا يوب سوارا قالوا لم نكن من المسلمين مونا داو ني جولي borom xam-xamu lislaam yi kenn wutewul kenn kenn kenn wutewul ni ku bàyyi julli yéefar nga amul kenn ku ci wutewul ku bàyyi julli bu deewee kenn du ko suul ci bàmmeelu jullit bi ku bàyyi julli kenn du ko ñaanal ku bàyyi julli jàpp ni wàcc na ko fas ni jàpp na wax ma ku bàyyi julli ngir tayal léeg-léeg mu julli léeg-léeg du julli comme bay Faal jàpp ni julle koor da koo wàcc mécréant yooyu la xalif des général de murit yebal ñuy torturer ay doomu jullit yow nekk goo jullit yow islaam dalaa war a duma ñoom lu ñuy def doomu jullit ñi nii ñoom lañ ko waroon def ñoom ñoom bu doon islaam la ñuy àtte dañ leen di caw dañ leen di tëj ci benn néeg tuubloo leen bu ñu tuubul ñu rey leen bu doon charia la ñuy àtte laa wax dëkk bu ñu àtte charia naka ngay jëlee ay mécréant ay yéefar ne leen dama leen ngeen àtte ay doomu jullit dem leen ngeen appliqué ay doomu jullit charia ñu jàpp doomu jullit yi nga xam dañuy julli di woor di jàng alquran fekk leen ci seeni daara di leen torturer état bi bàyyi leen ci noonu wala ñi nga xam ne ñoom ñoo yor sécurité réew bi bàyyi leen ci noonu ñiy def la leen neex léegi ay yéefar ñooy ñëw di toroxal ay doomu jullit ñoo xam ne jàpp nañ julle koor wàcc na leen xale bi dégradé ngay téye di ko wat di ko duma wala xale buy football wala kuy tox bu fekkee mu ngi julli di woor moo la gën yow bay faal bu bon bi nga xam ne doo julli doo woor bàyyi leen naafiq dale waxte dëgg sénégal rek ngay gis ñuy baaxal ku dul julli du woor sénégal rek ngay gis ñu jël ab bayfaal bu dul julli du woor daf ko nit ku sell bañ na ko sax ba kuy bàkku li ngay bàkkoo mooy man Baye Fall laa maanaam léegi Baye Fall bu baax la dafa sell wala man Yaay Fall laa lan ngay bàkkoo mbon ñàkk julli ñàkk wor léegi bañ na ko sax ba Baye Fall léegi soo ko waxee rek mooy ah Baye Fall ah, diw Baye Fall la bu ñu buggee kii ku baax la booy Baye Fall la ku dul julli doo wor ñooñu ngeen di jël référence borom xam-xam yëpp dëppoo ni ku dul julli du wor la kenn ci ñooñu bu doon islam dañ leen waroon caw ñoom tey la ñuy ci xale yi ci ñoom lañ ko doon appliqué ban dëkk lañu nekk waaye nag bu mu leen jaaxal parce que seen xalif général moo taxaw ne ñoom dañoo am jagle bañ a julli bañ woor moo ko wax vidéo yaa ngi fi sosaluma ko Matar Sarr am ngeen loo leen wax wax leen ci lii war sàll kay ngeen yam ko jam Omar Sall moom saa yu waxee rek ngeen génn taal seen micro ratatatatara Matar Sarr yaa gën a xam ni Baye Fall bu jullit woon yéefar la te yaa gën a xam ni xalifa général des mourides moom moo leen digal pour ñu def lu ñuy def yaa gën a xam ni xalifa général des mourides taxaw na fi ne ñoom am nañ jagle bañ a julli bañ a woor mais doo ci ŋàndee doo ci wax parce que hypocrite la <coughs> lii ay caaxaan la fekk ay doomu jullit sëriñ buy jàngale daara alxuraan di julli ay doomu julli yu julli du woor ngeen jël ay mécréant ay yéefar yoo xam ne duñu teg seen jëye ci suuf ngeen yebal leen ñuy torturer ay doomu jullit fen lañ ko tamit am leen fulla seen bopp bu leen nangu ay yéefar ñëw di leen torturer parce que ñii tey bu ñu deewee ci lii safara lañ jëm amul sikki sàkk bu ñu deewee ci ñàkk julli ñàkk woor safara lañ jëm du ñu seeni mbokk jullit yàlla nee na ci yëfar yi fa in taabu wa aqaamu salaa wa aatawu zaka fa ixwaanukum fi diin bu ñu tuubee ñoom yëfar yi taxawal julli ah su boobaa seeni mbokk lañ nga dégg ci mafoul mu xaalafa kudul dul julli du sa mbokk julit wallahu alam yàlla ñu yàlla jubal sallallahu alayhi wa sallam wa barik ala nabina muhammad